xam nga Cheikh El Hadj dafa wax ci rimaax benn feebar bu mu feebar mu wax Cerno Bello pour mu defal ko istixaara bu de bu gisee yonent bi mu laaj kon lan la war jëfandikoo ci feebar mu wax ko ko mu ni ko danaa ko seet ba mu ñëwee fekk benn soupière bu ñu ub mu ni ko mbaadu dañ lay faj fajo aada faju shirk billah yonent bi wax ko selhajo mu ni ko lu nekk ci soupière bi mu ni ko xabbul fuz boobu moom la daan lekk xabbul fuz dinañ ko jaay ci marché yi defe naa mooy li ngeen di wax radi amul bërki démb rek ma jot benn brochure tubaab yi di attire attention nit ñi ci njariñu radi la ci yonent ba wax ak Cheikh El moom la ñu reprendre parce que radi ñaar la bu xees bi ak bu ñuul bi yonent bi ni ko bu xees bi moo gën a woyof ci estomac kuy liggéey nag bu ñuul bi moo gën ci yow ndax moo lay gën a téye mais exactement loolu la ñu wax ñoom it pour wax la ni li Seydi El Hadj malik daan wax ni diggante àllaaxira ak àdduna nee na rido bi ci dox moo gën a sew li ñu tuddee musulin amul jigéen ñi di ko sol musulina amul baatu muslim sax du du baatu tubaab baatu arab la ndax tissu la bu ñuy liggéeyee ci benn dëkk bu ñuy wax muusi la fële ca Sham ñu faf tudde dëkk bi tissu bi waaw